bi ñu wàccee léegi communiqué conseil des ministres euh, ñu bëgg ci andax Macky Sall si limu bëgg limu bëgg moy ñu li nga Sénégal muy ñaan Yalla mu bañ law bu ko défé ñun dinañ ko bëgg-bëgg éviter peut-être les rassemblements populaires jël ay précautions képp koo xam ni aussi am nga ay symptômes gis nga loo xam ni euh, mi nga xaw a méngoo feebar bi nga fexe ba nga ba nga dem fi nga xam ni centre yi nga xam ni ubbi nañ ko jagleel leen ko ngir ñu saafara loole ndax kat man damay wax toujours ne euh, loolu mooy indi problème du autorité yi euh, du nit ñi mais ñi nga xam ni feebar bi dal na leen ñoom ñoo war a moytu loolu yonent bi sax santaane woon ñoo war a moytu bañ dem si nit ñi te képp koo xam ni dafa am sëqët bu sax ngay tissool boo xam dafay sax sa yaram di tàng nanga fexe ba dem fa ñuy fajoo nga wax leen ko ñu saafara jàngoro bi